السلام عليكم ورحمة الله بكي نجل أن يجد لين زيار لين بالحق نان برمي بولي نجل حديث تيب دفع وخ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النص من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن معاذ بن جبل مونت الحديث بموخني ينمت بصلى الله عليه وسلم دفع وخني yàlla day yendu yi ci guddi ni su Chaabaan nañ wax luy guddi ni su Chaabaan bu leen yendoo daal di jéggal ñëpp ba mu des kuy bokkaale yàlla ak ñoo xam ne dafa am noono bu dox seen diggante mooy nit ñu bañante kon guddi Chaabaan guddi ni su Chaabaan mooy fukkeelu fan ak ñeent ci weer wi nga xam ni mooy weer wi ñu nekk xam buñ ci génnee dugg ci weeru koor weer wi mooy Chaabaan lu muy tollool mu ngi tolloog ci weeru mars le 28 mars dimanche le 28 mars ci guddi gi mooy guddi nisfu Shaaban bu ko defee lundi di nisfu Shaaban di genn wàllu Shaaban nisfu mooy genn wàll bis boobu yit ku ci mën a woor na nga woor guddi googu ku ci mën a def ay jaamu yàlla ay nafila ay jàng alquran ay zikru na ko def ndaxte guddi guddi la gu foor ci borom bi subhanahu wa guddi yëpp a foor sax waaye guddi googu it ci tànneef la ci guddi yi man ci jàmm yàlla jàng alquran naafi la man ñaan yàlla mu jéggal la boole la ci nit ñu baax ñi lu ci def yàlla mën na ko nangu guddi googu nag la yàlla di xool jaamam yi daal di baal ñëpp mu des ñaar ñi nga xam ni ka ca njëkk mooy kuy bokkaale yàlla mooy jël nit def ko teg ko place yàlla wala ngay def dara di ko def ngir nit te defoo ko ngir yàlla kooku bokkaale bu ndaw la ak yeneen xeetu lépp loo xam ne day con lu war lu yàlla waroon moom la nga jox ko rek kooku day dugg ci shirk kooku njëggal loolu du ca bokk beneen bi mooy ñu bañante ñoo xam dañoo noonoo seen diggante jullit warul am benn mbindeef bu mu bañ parce que mbindeef yëpp mbindeefu yàlla lañ bay noonoo di dox seen diggante kooku moom lu mat a moytu la loolu moo tënk xadis bi qul qawli hada wa astaghfirullah al azim li